salaamaaleykum mbokk euh, auditeur auditrice wu réew mi fm dal leen na jàmm seen émission sans filtre euh, di jotaayu ndaw ñi fii ci réew mi fm lay amee euh, mercredi bu jotee 15 jàpp 16 heures ñu fi waxtaanee à chaque fois des sujets yoo xam ne moo soxal ndaw ñi tey ñu dalal Moustapha Sy le plus jeune analyste moom lañ fi dalal fas yéene waxtaanee lépp lu jëm ci sujet d'actualité Mor euh, yaa ngi fii ma bàyyi la nga nuyoo balaa ñuy dara suñu gan. waaw maa ngi lay nuyu di nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñuy déglu saa su nekk ci euh, rajo réew mi la jaajëfal di dala aussi suñu invité du jour euh, donc di nuyu ñëpp di sant ñëpp. Mhm. merci Mor Fall Moustapha Sy analyste yaa ngi toog fii un plaisir encore ñu accueillir la fii suñu plateau ñu bàyyi la nga nuyoo ci mbokk auditeurs yi. auzubillah bismillah leen wala yàlla alors mbégte ak contentement très sincèrement ñëwaat waaw fi nga xamante ne suñu kër la tey ci suñu émission bopp muy espace jeune alors euh, monsieur Fall noonu laa lay nuyoo yow itam di la ziar di la jox sa wàccuwaay ba ma set si c'est toujours un plaisir très sincèrement de venir répondre à cet appel wax ne bon émission Espace Jeune même bu ñëwul émission la boo xamante ne defe naa depuis bi mu fi commencé ñëw ba jusqu'à maintenant mosuñu tardé benn numéro. Mm-hmm. on reste toujours soit de gën a jàng ci biir émission bi macha allah. Mm-hmm. noonu la ñuy nuyoo képp koo xamante ne rek yaa ngi ñuy teewlu que ça soit nga nekk biir réew ma bitim réew ak ci biir plateforme bu Rewmi FM. Mofa mm-hmm. euh, je pense que euh, actualité manifestation bi la. waaye balaa ñu ci ñëw rek euh, coach ba muy ñëw sànq ci taxi bi. Euh, malheureusement euh, yàppul numéro bi euh, ay pièces yu ci bëri xaalis bu am solo. Hmm. coach ma bàyyi la nga wax rek peut-être ku ko for. alors voilà donc bi may ñëw léegi léegi si taxi bi dama bàyyi sama trousseau e si trousseau bi y a carte bu Union africaine carte bi nga xamante ne moom mooy permettre à ce que ma am yenn accès yi par rapport au niveau du ministère en tant que représentant de l'Union africaine ici au Sénégal. Mhm. aussi euh, y a mes pièces donc sama carte d'identité et tout ça. donc aussi sama passeport mu ngi ci biir et autre chose mooy am na benn somme bu xaw a kii rek bu nekk ci biir incha allah alors euh, période li ma gën a soxla très sincèrement bokk na ci li nga xamante ne mooy samay carte ndax tey li may liggéey yëpp amaana ci loolu noonu la sukkandiku quoi et que je pense bien que y a mes cartes visite aussi dedans donc euh, ku ko mën a jot rek war na mu mën a woo ci numéro ñett numéro yooyu nga xamante ne moo nekk ci biir euh, kii bi carte bi mhm. incha allah heureusement ba téléphone bi demul kon euh, képp ku ko déglu rek euh, mbokku déglukat yi nga for ko benn taxi la ko fàttee benn sac ay pièces yaa ngi ci biir waaye itam ay numéro téléphone ndax carte de visite ñu ngi foofu ku ko mm. for rek nga jàpp si rek boo ko ko mënee restituer euh, voilà donc Mor nga ñëw ci rubrique actualité bi waaw rubrique actualité dañ koy accenté ci li nga xamante ni mooy manifestation yi xamante ni moom la ñu euh, gis ci biir euh, réew mi saa su nekk euh, chaque fois nit ñi bu ñu amee leen loo xamante dañ koo bëgg a fësal damay wax su du ma côté population bi mais à fois ñi gën di jëmmal ay affaire manifestation mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk di côté de l'opposition saa su nekk ñuy wax nit ñi ne manifestation sàngam ci leen wala boog lu mënti demee mais je pense que lu mënti lu mënti am je pense que réew mi fi mu nekk nii war nañoo Euh, am yeneen taxaw taxawaay yoo xamante ni moom moo gën ay waxu manifestation parce que euh, dëkk bi dafa am ci yu mu génn jafe-jafe yu mu génn ci wàllu pandémie ak leneen ak leneen mm. donc euh, chaque fois ñi nga xamante ni ñoo nekk ci côté opposition bi saa ñu amee seen mbiru intérêt bopp yoo xamante ni lañ bëgg a jëmbal ñu inciter nit ñi vers ci li nga xamante ni moom mooy manifestation ba mu fekkee bu demee ba benn instant nguur gi am nu mu nit ñi war nañoo mën a fësal seen mer mais à chaque fois euh, man li ma seetlu moom mooy ñii laajte li nga xamante ni moom mooy wàllu manifestation day jógee ci li nga xamante ni moom mooy euh, opposition bi te lépp day jëm ci li nga xamante ni moom mooy euh, wàllu intérêt Euh, personnel. suñu mm. la waxoon jàppee ci ci coté côté de euh, plus de soixante dix pour cent trente pour cent yi laay mën a jàpp ne ñoo jëm ci population bi alors que li xalaat ci opposition bi ñoom loolu donc euh, warul nekk ñoom seen taxawaay boobu taxawaay bi moo war nekk ñuy taxawal benn lu mel ne benn loi boo xamante ni arrangé wul population bi donc ñu ñu mën a manifester wala boog ñu bëgg a teg leen loo xamante ni daanaka moom mooy moo jëm ci li nga xamante ni peut-être que moom mooy. Euh, wàllu ay euh, position wu état wala leneen la ñuy manifester mais à chaque fois manifestation yi may gis yu bëri bëri bëri bëri yi ñuy incité nit ñi pour ñu génn man dama koy jàppee genre euh, intérêt crypto personnel alors que xaar xaaruñu foofu li nga xamante ne moom mooy opposition bi mais nag bon comme que dañu ne dëkk boo xamante ni ku ci nekk am nga droit à manifester mais du nii nga xamante ne saa su nekk rek ñu ne manifestation manifestation parce que gis nañ fi ñu bëri ñoo xamante ni nekkoon nañ ci réew mi temps Abdoulaye Wade amoon na ñu fi nekkoon opposition gis ñu woon ni mu demee nii saa su nekk ñooy dañuy manifester temps Abdou euh, bi ne daaw bëri li euh, euh, ñu nekk nii gis naa ne daal bëri na trop saa su nekk ku nekk ne da ngay manifester te manifestation ñi ci kii ñëpp jeunes ñi la woo kaay leen ñu inte te ñoom seen ay nit ay doom doo leen gis ci biir manifestation yi seen ay nit ñi nga xamante ni mën a yor ne ay nit ñu proche ñoom doo leen gis ci manifestation yi doomu jàmbur la woon ne leen kaale manifester euh, ñee la ñu ne kaale manifester euh, donc euh, ñi nga xamante ne woo saa su nekk daal naa leen kaale manifester nañu xam bu baax a baax a baax ci li ñuy dem parce que ñoo nga xamante ne ñoo leen di manifester la bu ñu leen jàppee ci kaso wala boobu ñu ñu ñu dóor leen bal lu ñuy mujjee taxaw si kii bi ne waaye ñi ngeen di jaale alors que ñi ñàkk ñàkk nañ ba noppi mm-hmm. Euh, grande mobilisation bi nga xam ne coalition Yewwi Askan Wi euh, woote nañ ko liñ ci ñaxtu rek ñëpp xam nañ ko maanaam euh, ñu xoolaat système électoral bi ñeel jongante élection législative yi nga xam ne ci la ñuy jëm loolu la ñuy manifester jamono ji ñi ngi wax sax am na ay bus yi nga xam ne jóge na ci région yi mais dañ leen a ñu bañ a yegg si fake news aussi gis nañ ko bëri na Euh, quand pouvoir bi gis nañ euh, news yi nga xam ne moom la diffusé euh, bus Tamba bi ñu ne daa këpp ba am na onze doomi aadama yi si ñàkk seen bakkan alors que loolu lépp ay fake news la ban jàngat nga am ci loolu lépp alors merci euh, laaj bi et beneen bi mooy dëggaloon tout petit peu par rapport ak li monsieur al wax xam nga tey réew mii di Sénégal day réew moo xamante ne je pense bel bien que ne ñu bëri woon nañu mën a yeew yeew mooy lan je me dis bien que ne réew bu mu munti doon ci àdduna jaadu na mu am ñu nekk au pouvoir jaadu na muy ñu am ñu oo xamante ne dañuy opposé wu donc cela veut dire tout simplement que ne ci norme politique lañ nekk su amee ñu nekk au pouvoir am ñoo xamante ne ñu ngi nekk ay opposants maintenant je dis xam nga tey euh, trois aspects yoo xamante ne rek suñ ko laalee defe naa am na lu gën a priorité comme yenn ñaxtu yi mm-hmm. benn benn mooy wax na ko tout à l'heure moom moo ko wax ah il a que ne ci par rapport ak pandémie bi ñu jógee donc cela veut dire que ne retrouvaille war na doon loo xamante ne ñun war na ko mën a daw ndax jusqu'à maintenant on parle de cette pandémie mmh. donc comme c'est pas euh, radicalisé de de manière générale comme c'est pas éradiqué de manière générale donc il faut savoir que ne ça existe toujours donc war nañ mun a daw yenn yi alors beneen bi mooy on on nous parle de système politique et que man seen système bi ñuy jugee pour jug à la défence aussi seen système boo xamante ne Sénégal dafa war a mun a weesu foofu. Mm-hmm. mooy ay opposants des personnes yoo xamante ne tey. seeni intérêt personnel la ñuy défendre yëkkati ay jeunes yu amul passe-passe ay jeunes yu Sénégal waroon yaakaar ci ñoom parce que tey Sénégal bokk na ci réew yi nga xamante ne ci àdduna parce que quand on dit on a une population juvénile ñun pour cent de la population c'est les jeunes donc ndaw ñu ñoo war a yeewu ba du benn mag parce que tey par exemple ñii opposé wu ñëpp suñ leen jilee amul ku ñu mën a woowee jeune ki si gën a ba par exemple prenons le cas de Ousmane Sonko Ousmane Sonko tey su faloo il ne sera pas le président bi gën a jeune ci Sénégal Macky Sall sax ko gënoon ndokkoon parce que diggante quarante sept ans ak quarante neuf ans kon gis nga ba tey il n'est pas jeune alors je me dis je peut-être benn message d'abord pour les jeunes tey war nañ mën a yeewu ci nu dul jug leen ñu dem ñaxtu ci loo xamante ne pour monsieur Fall kese la. jug ñu dem ñaxtu ci loo xamante ne pour Sylvie Khady kase la parce que tey li ñuy ñaxtu ñaxtuwu parti la d'accord man je m'attendais à ce que réew mi seer na mhm. ñu jug xool leneen ba ne stratégie li mën su je m'attendais à que nit ñi fajowuñu ñu jug je m'attendais à ce que professeurs yi ñu ngi réclamer seen i jàng ñu jug parce que ça reste des priorités yoo xamante ne war nañ ko mën a ñaxtu mais quant benn parti moo bëgg jug et que ñu bëgg jël yenn yoonu Dakar ñu baare ko et tout ça nañu arrêter des choses folkloriques et que man je comme on nous parle toujours de système si fekkee ñoom Ousmane Sonko ñooy jug di ñaxtu ji nañu changer boobu système et que na ñaxtu autrement parce que tey y a les médias on peut parler partout su mm-hmm. fekkee système de plaidoyer kese en tant que coach en plaidoyer je dis bien bu fekkee plaidoyer rek la ñuy def y a les y a les chaînes y a pas mal d'endroits yoo xamante ne mun nañ fa porter seen plaidoyer le message va passer et tey du jug yenn këral mais kanta à jug di baari ji ay yoon jug di sànnante et que tey ñaxtu bi ñu def ñun on nous ne sommes pas pacifiques parce que tey boo dee seet Sénégal su jógee pour ñaxtu ay armam la njëkk ngaan naa yoo pour moom war na mun a daje force de l'ordre ñu jaayante pour ñoom loolu lay ñaxtu alors que lii de yàlla c'était peut-être def ay pancarte génn jaale la ay message wax ne lii moo ñu metti mais ñun dañuy nakkalu di yàkkaale des biens publics mm. dañuy nakkalu benn masamba boo xamante ne tey xëy na oto moo ko liggéeyal boppam moo ko ñax boppam du moo ko jox mm. moom la ñuy fekk taal moom la ñuy fekk tey c'est des choses pour man choses vécues leçons mun mm-hmm. jàng par rapport ak système comme on parle de système on va utiliser ce mot war nañ mën a jàng par rapport ak système bi Sénégalais yi di ñaxtoo tey mën nañ ko réformer on peut le faire autrement je pense bien bu dee plaidoyer ñor bu fekkee du fin na mais man je dis c'est un message que je lance à tous les jeunes kaay leen jug wàcc si terrain bi kaay leen jug dem dóore ji kaay leen jug dem xeexe ji képp ku la koy wax defe naa bëggalul la benn réew moo xamante ne dina sukkandiku. je m'attendais un quelqu'un qui nous dit que ji kaa leen dem sukkali suñu réew kaa leen wuti ji ay stratégie yoo xamante ne suñ ko tegee même bu dul nguur ñun mun nañ ci sukkaliku mais pas kaa leen dug dem tayle suñu bakkan très sincèrement je suis vraiment désolé pour ça. <laughs> doy na waar doy na waar vraiment en tout cas de tey euh, attraction bi yëpp place de la nation la ñëpp ñu ngi jukk euh, wutali foofu euh, mais boo xoolee à côté sax manifestation yi li muy yàq côté économie. parce que ñi dëkk tout autour ci alentour yi. dootuñu jaay. Euh, voilà ñi ñi nekk secteur bi jaay katu yi dootuñu jaay ñenn ñi dëkk foofu dañuy teel a wàcc gis nga di gis ñoo xam ne sax duñu xëy ñu dem liggéey. Mm-hmm. Mm-hmm. élèves yeeg étudiants yi di nga gis ñoo xam ne tam dañuy teel wàcc ngir mën a dugg seen kër yi tëj. Mm-hmm. Euh, li muy impacté daal vraiment dafa bëri kon coach ni nga ko waxee su ma sañoon daal ñu xoolaat vraiment façon bi nga xam ne surtout opposition yi leader mel ni Ousmane Sonko bu wootee euh, vraiment. Euh, population bi yëpp dañuy génn mm-hmm. Mm-hmm. Euh, léegi dañuy wax rek ci li nga xam ne moo di euh, insécurité bi agression yi nga xam ne coach mm-hmm. nemmeeku nañ ko jamono ji fii ci Sénégal doo xëy benn jour gisoo agressé nañ ko jam nañ ko paaka def nañ ko lii def nañ ko lële viol yi par ci yi meurtre yi par là tey mu mel ni rek y a un de d' agresseur fii ci Sénégal parce que boo xoolee agression yi fi mujjee am yëpp ak ñi nga xam ne dañ leen a rey ay jege ñaale ñoo koy def mm-hmm. tey nekkatul ki nga xam ne ci mbedd bi la nekk da ngay romb rek mu këf sa saak jam la daw déedéet mm-hmm. mais ki nga xam ne moo la gën a jege mm-hmm. maanaam sa parent wala maanaam sa collègue gis nañ genre yooyu ñooy jàpp di def euh, yenn xeetu agression yi alors Sylvie euh, on va parler psychologiquement xam nga tey doomu aadama y a quelque chose qu'on comportement et tey dafa am comme boo xamante ne su dañ ci yow rek mooy tu n'es plus humain tu n'agis pas comme un humain mooy dootoo nekkati nit mais yow bàyyi ma sax dalay tane est-ce que xam nga tey mala su gisee feu mu leen ko ne danger si saa si day def demi tour mais am na kon nit fu muy mën a dem ba mu leen a ko ne lii danger mu dem di ko attaqué ji di ko song si mooy départ seen sax niveau bi nga xamante ne mooy mala mm-hmm. mu leen la boo jamee nit ki day dee yow yaa koy def sa coobare bopp yaa koy jëm pëlam pour mu dee mm-hmm. et que bi nga soxla ci moom objet la boo xamante ne c'est que daal ça signifie rien donc tey kooku war na mën a taxaw ñu jàngataat ba xam lan moo ko dal point d'interrogation mm -hmm. mais je naa à comportement parce que yarin ni xam nga tey monsieur Fall defe naa ay waajuram depuis bas âge tàggat nañ ko noo xamante ne tey même bu amuloon si lu mu jàpp moom mu ngi jéem a xool naka lay sukkalee boppam mais pas naka lay yàqalee doomu aadama yi c'est-à-dire comportement boo am ab bas age loolu yarin la loolu parents yi ñoo si war a jub et beneen bi mooy regarde dafa benn benn benn idée bu munoon baax Sénégal bu yàq lu bëri bu leen fàtte ne ci nguuru Macky Sall bi la ñu defoon lu ñuy wax sp agent de sécurité à proximité tey boo dee seet rôle bi maanaam titre A c'est bien mais par rapport ak mode de fonctionnement c'est pas bon xam nga tey suñ la waxee ne dañoo jël ay nit ci gox bi ngir ñu garder gox bi te mm-hmm. tey à la police la ñuy toog wala sax ci kaw tëli kon lan moo nekkoon seen njëriñ et que bi ñu leen doon jël mooy sécurité de xam ngeen ko mooy bopp koñ mm-hmm. mooy porox ndoll yi nekk si biir koñ yi alerte moo nekkoon seen rôle mooy comme gardien yi li ñuy def mm-hmm. taxaw si bopp koñ suñu gisee danger ñu alerter à la directement su fekkee ñoom mun nañ agir ñu def premier agissement mais ñu alerte police police ñoo def intervention n'est-ce pas tey ñooñ fu ñu nekk tali bi à la police ci tali bi wër xaalis la ñuy def wala leneen donc la est-ce que looloo taxoon ñu yëkkati leen déjà benn problème mu ngi noonu beneen bi mooy xoolal les bonnes volontés yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci biir koñ yi sax sol ay gilet pour mën a ñëw jàpp sàcc yeeg yu demee noonu bien sûr guddi ba guddi la ñuy def parce que xam nañ ne bëccëg gi ñu ngi dem dallu ñu ngi def leneen kon donc système de sécurité bu état waroon teg moom moo des il faut qu'on le dise. Mm. pourtant y a de jeunes yoo xamante ne tey ñu ngi nekk dans le chômage. et tey mënoon garde réew mi mënoon yor lii mi est-ce que mënoon am benn école boo xamante ne di nga ko yëkkati uniquement pour nga dem ñu tàggat la ñu jàng la noo xamante ne système de défence la pour que yow nga mën a aar réew mi et boobaa état mu la mais combien de xam nga on parle de financement. Mm-hmm. y' a y' avait d' autres émissions yu fi ñëwoon di wax waxu financement mais tey xam nga financement dàkkul nga jël xaalis boo xamante ne investissement humain mais boo xamante ne juridiquement sécuritaire mooy ci ki nga koy investir. kooku say njeexintal bi da si am yow sa boppam yow nguur da si am njeexintal boo xamante ne bu mucc ay lay doon mhm. pourquoi mooy la la doon def problème la la doon sonal loolu nga wut kenn koo xamante ne dina la ko aaral donc ça reste un manquement boo xamante ne xëy na war nañ si mun a bàyyi xel alors loolu chose pour terminer xam nga tey euh, monsieur Fall boo dee seet par exemple ñun ñuy dëkk dans la banlieue amul deux jours wala trois jours booy toog te doo gis agression mhm. muy ñaareel bi mooy fu la neex ngay jëndee paaka fu neex ngay jëndee jaasi boutique boo duguboo boo jëndee paaka mm-hmm. ñu jaay la boo dugg boo jëndee jaas ñu jaay la mm-hmm. ki lay jaay xalaatu ne sax da ngay jël pour xeex ji wala ngay def leneen mm-hmm. kon est-ce que en fait je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire États-Unis day dañuy wax ne so uh, it's the side for comptures the term line for the wombs c'est-à-dire ñoom ils dafa am benn endroit boo xamante ne uniquement c'est pour les armes Mais quand tu viens, quand tu viens réellement pour acheter une arme, il faut d'abord, il y a, y a, ce qu'on appelle les questionnaires. On te questionne sur l'okoïdoye, pour l'angle, fengedek. Et que ben moi je tout ça pour que si toutefois que arme bobu ñu fekkon ko fenn emprunté ya wax na kan moo moko jëndon ñu xam kan la ci sas mais ñu dañuy jaay arme ñu nexé mm-hmm. paaka bu ñu génnoon fii ñu jënd ko man ak yow. Mm-hmm. jaase bu ñu génnoon fii ñu jënd ko man ak yow. xaaral ba ñëw ci mbedd nit xool moto yi ñuy wane su bëree yi jotee wala tout ça nit ay dem fekk nit koo xamante ne daa daane woon doolam ñu wàcc nga rocc sa jaase ne ko jox ma sa moto par la force mu bañ nga koy dóor. Mhm. et que si vidéo yi boo koy xool da ngay xam lii mais en fait posons-nous la question pourquoi ñu am fi def ko est-ce que bu ñu gisoon police. Mhm. taxawoon ci kii non duñ ko def. Mhm. parce que xam na ne boo koy def policier ngi ne da lay ñëw jàpp si où sont mais où sont les on n'a pas besoin de policiers yoo xamante ne wala des gendarmes yoo xamante ne c'est-à-dire intervention ba intervention la ñuy xaar mieux vaut prévenir que guérir même ki doo ko bàyyi ba mu yuux wala ba mu dee wala bañ jam ko ba léegi nga bëgg a ñëw pour assister mais non kon donc am na benn système boo xamante ne il faut xama y a pas mal de choses yu ñu war a revoir c'est pourquoi parfois même nos opposants ñun ñëpp dañ leen di mere parce que tey pour man opposant li ñu koy doyee mooy que tu sois stratège mooy que tu regardes les failles nga indi si apporter si ay solution teg ay stratégie de travail yoo xamante ne surtout fàkk ñu def ko mhm. mais kaay nguur bu munta doon ah nguur bu munta doon su bëggee sukkaliku bu déglu opposant mu wax loo xamante ne njariñ la mooy que trois mois da nga lool. Mhm. parce que da ne lii njariñ la te su askan bi besoin la ci askan bi mhm. su ko deful kon day mun a def mais ñun suñu opposant waxuñu ñu lool xam la la ñuy wax weerante la ñuy def xastante la ñuy on parle le mal toujours on ne parle jamais du bien et kon donc ban Sénégal lañ nekk jaar na ñun ñëpp ñu yërëm suñu Sénégal parce que ñu nekk ci kaw muy ñi nga xamante ne ñoo yor nguur. Mhm. boo dee seet seen c'est des choses yoo xamante ne ku ma am ndey ku ma amul ndey on l'a tous remarqué wala ça des gens lan moo gën a nekk priorité pour suñu par rapport ak suñu intérêt politique mooy benn stratégie lañ mën a teg pour suñu politique bi mën a sauver wu. alors que opposant bi moom il se dit toujours que naka laa mën a def ba yàq xelu nit ñi bu dugg si bopp nit ñi ba gëm loon que ne c' est l' incapable qui est de faire. Mm-hmm. alors que même bu fekkee c' était quelqu'un qui est capable mais nous on le traite comme l' incapable donc c' est à dire nous ne sommes pas du tout stratèges au Sénégal liñ soxla xam nga tey suñ jëlee monsieur Fall certes il est à la radio mais il peut donner des idées boo xamante ne. y a une personne là mu daa bu nekk ailleurs daf koy déglu rek mu ne ah bon tiens voilà une très bonne solution très adéquate même mm-hmm. à une telle équation mm-hmm. mais ñun duñu doxalee noonu ñun maanaam fitna la ñuy gën a yee mm-hmm. xiiroo ngaayoo la ñu gën a yee je te un endroit boo xamante ne moom moo munti dem ci kaw suuf moo koy defar bu yàqoo moo ko yàq prenons notre assemblée loo fay gis xiiroo ngaayoo là où on te dit que ne c'est là où on vote les sante moo fa ëpp solo que leneen opposant bi yaakaar na ne chaque jour ki nga bokkut ak parti du wax dëgg. lu mu munte waxee tu dis non. mais attends noo où sommes-nous allez lire euh, la Bible ou le Coran vous verrez bien que ne yàlla moom mooy wax mais yàlla parfois day questionner jaam bi mm. est-ce que yaakaaroo leen ne c'est-à-dire ñu bëgg a xam na moom moo ñu gën a xam li xew. Mm. mais daf ñuy bëgg a tàggaloo rek suñu xel mooy que ne lépp si dialogue lay demee. si mm. discussion lay demee équitable maanaam mais pas. ànduma ak yow defoo lu baax yow laa àndal yaa gën ñëpp hmm. non mais attends c'est normal tey benn jeune bu nekk ci par exemple suppose je donne un exemple terre à terre c'est normal benn jeune bu nekk ci parti yow euh, Ousmane Sonko supposons hmm. dem ne Macky Sall très sincèrement nous saluons ce travail c'est normal aussi un jeune de mac Sall vient dire à Ousmane Sonko très sincèrement nous saluons votre travail mais nous on ne salue pas le travail bi nga xamante ne moom lañ soxla chaque jour position bi ñu am mooy que ne comme faruñu dama lay yàqal comme faruñu du ma la waxal lu baax donc kañ la ñuy réparer suñu système quand on parle toujours de système waaw ci loolu may ma yokk ci leen parce que je pense que ah. moom fi mu waxee man foofu laa jëm parce mm-hmm. mooy suñu suñu dëkk bi ku ci nekk ñoom dañoo def lépp ci wàllu politique ki nga xamante ne moom mooy moom mooy nguur gi ak ñi nekk opposition ak nga des ñoom ñu gis ay failles am ci insécurité bi mhm. sans ñi nga ñoom ñooy nguur gi ñu jël si failles yooyu ñu ñoo wax nañ pour mën développer loolu mhm. dañ naan non li Ousmane Sonko moo ko wax wala boo ah. opposition ñoo ko wax je vais je vais kii parce que am na problème insécurité bi ñu demee nii ak nga am na les les ak AFP teg nañ ko fi c'était juste man ni ma ko jàppee moom mooy genre affaire politique. Mhm. pour juste pour insérer des euh, des des alors que mhm. war ko mën a utiliser pour mu nekk comme des comités de vigilance yi amoon ci koñ yi. Mhm. parce que ñooñu dañoo nekk ci koñ euh, di euh, kër gu nekk fay 2000 kër parce que am kër yoo xamante ne mënuñoo fay. bu mujj mbiri naax saay pourquoi pas état bi jur woon ASP yooyu nga xam ne dinañ jël leen fay chaque weer mhm. lu ñuy ut si ay mairie lu ñuy ut si ay buntu euh, fi nga xamante ne moom mooy ay tribunal xam nañ ne euh, mhm. jël ñooñu teg leen ci quartier a garder koñ bi tout tout le temps il fait des am naa jeune boo xamante ni nekkoon na foofu est-ce ko jéem a xool nga jël ko dugg ko ci biir ASP lu muy xëy xëy toog bi biir maire bi liggéeyu fa dara dara dara dara dara ak yeneen ak yeneen ah, parce que à chaque fois day dañuy teg lenn nga yaakaar ne lii c'est juste pour créer euh, benn juste pour pour régler benn benn problème nga dem ba ci biir nga am benn déception ci ci mbir yooyu moom moo am ci li nga xamante ne moom mooy mooy moo am ci programme yi nga xamante tegoon nañ ko fi a financer euh, des jeunes muy muy DER ak mhm. mhm. ay idées yu yu nga dem ba ci biir xam ne c'est juste des pour pour combler wala boog pour satisfaire mhm. des des euh, des sympathisants politiques affaire yooyu alors que pays waru waru noonu pays waroo mën a def euh, ne rek affaire yu yaa ma neex nga koy def parce que bañ la falee président n'es plus le président de Benno Bokk Yaakaar tu n'es plus le président de l'APR tu es le président de tous les Sénégalais même sax de de ñi nga xamante sax du ñu ay Sénégalais parce que ku mm-hmm. dem ba ba ñëw ñëw sa biir réew yow yaa a mën a mën a protéger parce que loolu euh, euh, loolu moo tax nit ki nit ñi ñëw si réew. Mm. mais bu ñu def nii à chaque fois non seulement dañuy frustré jeunesse bi mais euh, dañuy frustré ñeneen ñi nga xamante ne presque sax ay ay investisseurs dañ naan ma jël sama xaalis di ko ni bu amee benn kii bu ndaw ñëw lakk ko man ma du ma nekk ma ne man man juste vieux de la Côte d'Ivoire am naa 500 millions ma ne su ma ko investir Sénégal fii bu ñu amee benn grève bu ndaw nañu ñëw dañu ñëw lakk ko. Mm. donc nañu nañu xoolaat nañu xoolaat ñu. bu baax a baax léegi monsieur Fall est que gisoo parce que pour man lépp dañ koy waxtaanee. Mm-hmm. tey boo dee seede élection locale yi ñu génn. Mm-hmm. on a tous remarqué que ne tey par exemple parti bu mel ni Yewwi Askan Wi. Mm-hmm. gagné na yu bëri. Mm-hmm. mais tey est-ce que c'est pas le maire le maire je veux dire à la base donc dans les communautés est-ce que c'est pas le maire par exemple de prendre des jeunes histoire de leur offrir des emplois là mais de manière très sécuritaire mooy que ne tay jël ay ndaw tàggat leen bu ñu leen tàggatee ba pare. gérer loo leen sécurité askan boobu nga xamante ne ñoom lañ jiite au final donc mooy kenn dootoo xaar sax ci état mais ku ci nekk li nga moom li nga xamante moom lañ la dénk wala liñ la sédd su boobaa war nga ko mën a mais maire yooyu ñoo moom lañ fal ah. foofu banaa moo banaa mu naan danaa damay xool <laughs> développement koñ boobu moom danaan danaan ah, moom mooy campagne bi mm-hmm. xaaral ma utal ko benn benn salaire bu ndaw mm-hmm. Mor xëy day xëy suba moo signéwul benn benn kii bindul benn benn benn acte de naissance. est-ce que sax di nga ñëw day xëy suba suba teel. toog ci buntu bi wala boobu mu ñëw xëy ataayal maire. Mhm. mooy loolu maire bi sax xamul sax li xew si kii. parce que nga ñëw euh, ne maire laa sax ñu la ñëw la ñi war a ñi war a ñu wala ki war signé nekk fi. Mhm. imaginez lool c'est un problème. donc maire yi sax maire yi ñuy fal sax. ay maire yoo xamante bu ñu xasee ba toog seen mbir bopp lañ fay nekk lijjanti ay terrain nga jëjëk ñoo la kër gi mi maire ko moom Euh, damay jël euh, exemple fi nga xamante moom mooy moom mooy mhm. yëmbal yëmbal xam ne dafa dafa nekkoon liggéeyu fa dara dara jekk-jekk ñu dégg ñu ne maire bi am na ay millions yi millions <laughs> koo xamante ni euh, benn simple comme joxe exemple ki nga xamante moom mooy far bu ñu sàcc ay million ci biir këram. Mm. imagine genre affaire yu bëri yooyu nga mm. xamante day am ci biir réew. boobu ba léegi leeragul. ñoom seulement sàcc millions yooyu sàcc yooyu amaana sax genre dóor la nii la parce que <laughs> ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñoom ñooy ñoom ñooy soxla jeunes yi ñoom ñooy mujj sax di inciter jeunes yi euh, à la violence ñoom ñooy inciter nit ñi pour ñu pour ñu fipp parce que da ngay gis yenn yu doy waar yoo xamante ni yow mi nga xamante ni peut-être yow affaire bi mënoo ko faj na nga koy faje euh, dugg ci réseaux sociaux yi wax wala nga dugg fenn wax mais mais euh, benn instant daal yow da dem benn instant da nga naan man sam dootu dootuma voté ji te boo te mhm. boo ñi nga xamante ne peut-être ñoom ñooy ñu ñu euh, ñu ñàkk bopp ñi ñoom ñooy dem voté nit ñooñu après ñoom ñooy retourné waat ñëwaat à chaque fois di di di saaga ne dëkk bi doxul alors que ñoom ñoo ñoom ñoo faral ñoo ñi xamante ne ñoo dëkk su euh, tey euh, dama wàcc di def reportage mais gis nga tey esprit sénégalais yi. Mhm. koo ci laaj surtout affaire manifestation yi euh, pouvoir bi di contre manifester opposition bi di manifester fële mais ñoom lu leen soxal mooy dund bi. Mhm. ko ci tàllal micro xoolal dana la du ma wax man nu ñu def ba wàññi ceeb bi nu ñu def ba wàññi diwlin bi absolument boo waxee ñu ne Sénégal foo laal day métti daara daara daara dox fi ñoom en fait population bi ñoom loolu moo leen yitteel mm-hmm. mais pas ay manifestation di nga gis nag ñoo xam ne ànd nañ ci manifestation yi mm-hmm. mais ñeneen ñu aussi boo leen laajtee dañ la naan man nu ñu def ba wàññi dundu ji nu ñu mm-hmm. def ba euh, tey euh, boo demee marché loo yóbbu nga mun cee ndugg mais tey vraiment euh, gis nañu prix yi nu mu jékki-jékki rek daal di yokk mhm. amul dara loo xam ne vraiment wàññeeku na mhm. xam nga xam nga Sylvie yow côté boobu sax xëy na comme yéen jigéen ngeen dégg rek ngeen si am quoi mais peut-être ñun góor ñi ñun ñor kër on peut en dire quelque chose xam nga euh, c'est simple regardez bien prenons juste l'exemple ci Macky Sall bi mu njëkkee woon toog na avait tous remarqué que ne prix yu bëri dañ ko wàññi woon mhm. tout amoon na accessibilité mhm. par rapport à denrées alimentaires yi tout mhm. ça mais regardez si deuxième mandat am remarque bi ñëpp def mooy deux ans après di jàpp trois ans pour jeexal on a remarqué que yi wàññi woon yu bëri dafa yokk donc sénégalais xam nga nit ñi pourtant tey ku muusoon rek war nga mën ak ñoo yomb xam suñu problème ñun Sénégal nañ lekk ba suur nañ naan ba màndi na dëkk bi leer gis nga jour sénégalais wàññil dund gi nga xool taal lamp yi. Mhm. jour vous jure que ne le reste da xam ne ay bañkat nga ko sékkal ay góor nga ko sékkal. Mhm. c'est des personne yoo xamante ne mun nañ la xaar mais boo yàggee dootuñu la xaar dañuy mhm. wutali ji seen bopp. <laughs> c'est-à-dire c'est non naturellement nous on comme ça. mun nañ am dépendance entre guillemets par exemple pour peut-être un certain moment mais si toutefois que tu ne nous reviens pas on va aller chercher autre chose dañuy dem xool ji leneen sur le sang suñu problème neex naa xam neex naa gis neex naa xool maintenant xam nga état parfois on dit priorité d'accord gis nga ci biir priorité boobu moo la war a mun a may nga xam mhm. am na loo xamante ne soo ko defee yóbbul fenn askan bi mhm. kon mieux vaut loolu xaar mhm. que nga dem xool li nga xamante ne boo ko defee askan bi yëpp bég xam nga euh, ndeysaan je je me rappelle bien dafa amoon benn jamono bu ñu demoon Soudan libi ak cat Euh, au nom de l'Union africaine mhm, mhm. mais ma xool lan la ñu ree pourtant c'est des pays yoo xamante ne c'est pas calme y a tout temps de la guerre et mhm. tout ça par rapport ak suñ Sénégal je touche du bois yàlla bu ñu ko yàlla defal mais par exemple ñooñu da ngay sentir que la famine c'est par rapport à la guerre su guerre ñëwee parce que bu guerre ñëwee dañuy gis ne armée bi mooy couvrir li nga xamante ne mooy lekk tout ça donc population du si am accès nu mu ci war a amee lay doon benn temps lay am benn liira après mais n'empêche ça y est dedans maanaam day doon loo xamante ne ça existe am na ci réew mi peut-être benn conflit moo ñëw mu troublé ko mais ñun par exemple tey maara dee taali ñaan ma ko yàlla est-ce que xam nga y a des zones yoo xamante ne au fin fond du Sénégal non parce que ne Dakar par exemple Dakar Dakar mais Dakar lan lañ fi bay yaa tey bëraa nga doon xam bu ñu waxoon fermé nañ frontières yi ñu bëri yaakaar nañ ne ñun ñooy boos yi su boobaa ñun ñooy souffrir. parce mm-hmm. que su boobaa ñebbe du ñëw. Mm-hmm. gerte du ñëw. Mm-hmm. dugub du ñëw. ceeb du ñëw. rien suukar sax du ñëw. kon donc lan mooy ñëw. donc déjà ça est-ce kon quand on la décentralisation bi des kon c'est anormal l'idéal c'était de décentraliser. faire de telle sorte que tey. les cultivateur am accès par rapport ak mode de fonctionnement mais aussi les consommateurs puissent comprendre l'enjeu ak danger ban la am tant que loolu jéemuñu ko def résolution rek dañuy am benn problème et que tey boo desee de nos jours loolu la mooy hmm. yow monsieur Fall yow mi nga xamante ne yaay jënd hmm. xëy na xamoo sax lan mooy engrais lan mooy lii yenn difficulté la baykat bi am pour mu lii hmm. ce qui fait yow bu ñu yokkee sur le champ baykat bi buy jaay ji fële du yokk xëy na baykat bi la tax mu yokk mooy engrais bi moo yokk hmm. kon donc am na benn source bu commencé yëfi hausse bi di am hmm. je sais pas si vous avez compris donc le problème c'est facile à détecter c'est je parle de manière très pour nguur pour moo xam la ne nguur su bëggee sukka bi nguur su bëggee defar cest à dafa mel ni garab buy màgg te nga bañ mu màgg si saa si ci racine ba ngay dem nga damm sinon day jóg mais loo xamante ne da nga kaa négliger ci racine bi mais par la force doole mam fruit yi da koy gis léegi boo ko bëggee régler ci fruit yi non attends waa ji da lay wax ne ba may door du lii laa dooree woon jël prenons l'exemple ci wàllu location yi bi ñu waxee dañ koy wàññi certes wàññi nañ ko sous papier <laughs> mais waa ji la la lay wax sama kër bi ma koy tabax est-ce que nguur moo ma jëndaloon ciment effectivement ba ciment di seer est nguur moo ma ko jëndaloon mhm. est-ce que ba taataan du ma wàññiloo sama moo tax fan la mu jël lu mu wax munu mhm. dara ci location bi ah waaw eh, mais certes munu si mhm. dara xam nga kañ la si doom moo xaal la ak munoon possible location wàññeeku dama la bëgg a ñun c'est-à-dire on a les idées mais la manière de le faire moo baaxul tey d'accord location mun na wàññeeku mais si kaw nguur investir ci ay zone tabax fa ay tabax jox ñi nga xamante ne ay néew du doole ñu am accès dëkk ji foofu mhm. ci ay prix yoo xamante ne ku ne dina am accès mën a dëkk mhm. te doo fay li nga war a mhm. fay fa loolu stratégie kay am na parce que ki nga xamante ne ah. mooy moom nguur gi bu ñu jëlee si ko tabax bi nan la Sénégal mën a gën a cher ciment euh, Gambie gii te Sénégal ñu ñu am fi ñu am fi ciment Sénégal ndax la mën a amee euh, fu ñu defaree euh, sucre muy CSS Sénégalais mënuñ di di jënd ji sucre importé parce que teguñu moyens yi parce que man mi nga xamante ne man maay man maay sénégalais bi bu bu nguur gi jëmoon xool stratégie yi ñee def ba seen sucre bi yu weex tàll sénégalais bëgg loolu boo waxee ma la noonu sucre 16S euh, bi dafa xaw a xal noo kii bu sew noonu grand dogguma la mais nga baal ma si leen est-ce que xam nga ñun sénégalais ñun africain ñoo yaroo leen te yow soldat italien bi Gucci Colsis Keporos moo la gënal soldat nga mm. je donne un exemple terre costume bi nga xamante ne tey chéré sénégalais moo dem jënd ji t-shirt dagg koog yooyu da ngay gis ne forme bi lii la alors que bu ñu la nee Italie la jógee wala Espagne la jógee wala États-Unis da ngay sawar da ngay am fierté sax sonkar naan mm-hmm. bii États-Unis laa ko jëlee bii tel tel c'est-à-dire nu ñoo amul fierté si suñu bopp mm-hmm. donc su boobaa it ça cause un très grand problème xam nga tey consommer local suñu doon def consommation local par exemple ñooy gën a développé kaay ñu développé parce que on a les ressources le <laughs> Sénégal Sénégal très Sénégal boo xamante ne tey amul phosphate amul lépp benn matière boo xamante ne rek yaa ngi amuñu ko. Mhm. que ça soit muy côté minéral ak fu mul mhm. amul benn matier boo xamante ne yaa ngi koy ñun on a même de l'or mhm. mais kon grand posons-nous la question. comment parce que tey benn jëli ay étranger ñu nax ñu si esprit mooy ñun du ñu tàggatloo ñun chaque jour à la pratique la ñuy def xam-xam comprendre ngeen. mooy Sénégal bi duñ ko wutloo xam-xamu. naka la ñuy génnee libéré déedéet. Hmm. mooy dooleem rek lañ soxla. dañuy indi ñi benn spécialiste bu nekk bitim réew mu ñëw léegi moom dooleem mooy gasal ma fii gasal ma fee gasal ma faa alors que bu ñu jëloon benn doomu réew mi mu dem jàngi ji li ñuy gas. naka lañ koy gasee le pourquoi ñu koy gas suñ génnee mu expliqué ku ci nekk ba ñëpp amonis mooy tout res autour du Sénégal donc c'est un Sénégalais pour un Sénégalais contre un Sénégalais envers un Sénégalais sur un pour que tout reste ici au Sénégal mm. maintenant nag bu fekkee dañoo dem bay jël ay ñoo xamante ne bitim réew lañ nekk cellule chinois bi bu lay defaree suñu stade Sénégal bi daf koy jox heure de boo xamante ne buy teg stade bi doo fa nekk mm-hmm. ah parce que kon am na leen loo xamante ne mu ñu la koy denc link mais imagine tey euh, bu ñu jëloon exemple ci Pierre Goudiaby Atepa mm-hmm. ku ne xam ne c'est un très grand architecte il a pas mal fait en Afrique pourtant il travaille avec des Sénégalais tey boo amee fii benn job boo xamante ne il n'a jamais dit les Sénégalais descendez à sept heures ou venez à sept heures il travaille avec en collaboration ça c'est cest dire mooy am benn esprit de citoyenneté un développeur quelqu'un qui est vers le développement pour le développement da nga koy sentir même par rapport à sa façon de faire amul xam-xam bu ñuy nëbb du bëri xam-xam tant nëbb du bëri mm-hmm. tant que ko rek pour jox ko askan bi pour ñu jëriñoo donc ñun tey te xam-xam bu amul ci réew réew moom du sukkaliku mooy nous on a trop investi sur des jeunes yoo xamante ne mënoon na ñàkk mooy investissement bi ëppoon jël renforcement de capacité d'abord nit ki lan xam nga waxoon naa si par rapport à nit ki lépp lu mu munti doon ci kaw suuf laataa nga ko si jox xaalis jox ko si xam-xam. Mhm. xam-xam boobu après du soxla sax sa xaalis ndax dina wuti ji xaalis. Mhm. mais bu ñu la joxee xaalis te xamoo foo koy dugal gaspillage lay doon. et de nos jours c'est ce qu'on est en train de vivre ñaata yoon nga dégg état décaissé na ay milliards mais à la sortie tu verras bien que ne l'argent qu'on t'avait énoncé mm. et le truc que tu as si tu fais la comparaison de nga naan non mënul nekk comment se fait-il qu'on nous a parlé de mille milliards et cet objet bi nga xamante ne moom la ñu am équivaut à cent milliards ou deux cent milliards donc ça reste un problème benn ñaareel bi mooy suñu comportement encore parfois les choses se bien mais ñun suñ comportement ça devient mal prenons un exemple bu terre à terre Essat Maître Abdoulaye wad un Sénégal bi nga xamante ne depuis combien d'années on est premier en Afrique on joue très bien le football on n'a que des professionnels hautement professionnels à l'extérieur prenons le cas de Sadio Mané et de passage on les encourage on les félicite par rapport ak li nga xamante ne bi ñu defalee stade boo xamante ne même directeur euh, président FIFA bi mu ñëwee dafa ne stade bi mun na sax jouer finale UEFA et bien mm-hmm. sûr parce que tey stade boobu dàkk naa stade Europe. Mm-hmm. mais ñun bi ñuy def cérémonie d'inauguration on a tous vu que ne ay jeunes sénégalais ay ndaw sénégalais ñoo jóg yaakaar affaire de politique dem di yàq stade bi parce que suñuy discours yi maanaam notre communication c'est très mal non c'est non non non fait tu te dis est-ce que tey Sénégal bi nga nekk on est en danger certes on est en danger mais danger bi yëpp lu ñu ci mooy comme lu euh, comme vous l'avez dit tout à l'heure ñun tey lépp dañ ko def politique mm-hmm. parfois on ne parle pas du développement pour ñun li nga xamante ñun mënuñu def différence entre lii développement la mm-hmm. lii politique la mm-hmm. lu ñuy mënte def politique lañ siy def et que ça soit muy ñi nekk opposant comme ñu nekk nguur parce que nguur sax prenons tey buñ jëlee exemple tey pose première pierre euh, RTS bi am big <laughs> mais on a tous vu que ne euh, la cérémonie était folklorique mm -hmm. c'était comme si benn affaire ñoo demoon foofu di fa lii certes si nguuru Macky Sall lañ ko defee sa c'est à magnifier c'est à applaudir c'est à saluer mais on a autre chose yoo xamante ne en fait yoo xam xam pour def ko tu passes à autre chose parce que c'est pas des choses yu grandioses yu nit ñi doon xaar ci yow non am na yu ko gënoon nokk priorité mooy kon donc yooyu on n'a pas besoin gars ñëw fa wàcc effet faire du n'importe quoi et on est en train de gaspiller autre argent bu xajoot feneen. effectivement c'est-à-dire ñun on perd de l'argent on gaspille de l'argent ci benn endroit boo xamante ne warul woon donc je reviens euh, par rapport ak li nga wax sànq que ne tey gis nga Sénégal tant que ñaar doxaluñ ko ñaari duñ si accès tant que mënuñu ki nga xamante ne moo jiite ak ki nekk ci kujj gi. mun ne bokk parfois même idée ñu partager noo ko ensemble pour nekk ay solutionniste par rapport à une équation ça peut poser un problème et la deuxième chose mooy tant que mënuñu tant que tant que mënuñu léeg mooy seetaan tuuti xool fan lañ jëm parce que ñun dañoo tàmm nit ki bërëb ñu dagg sa yëf mais tey prenons l'exemple ter terre bi bi ñu ko defaree yàggul tuuti ñu gis terre baa ngi daw mais a gis gis nañu ay tuyaux yoo xamante ne gars yi ko dem dagg mais même si on de a même fii gis nga mooy lii nii du priorité am na lu ko gën a doon priorité loolay sukkali réew mais mhm. pas lii baaxul non. Mhm. je préfère lii du priorité. lan moo gën a doon priorité donner une solution par rapport à état bi mu bañ a am cest à qu'il ne soit pas orgueilleux mu am courage u déglu benn Sylvie mais xam nga xam nga xam nga Macky Sall commencé woon na loo xam xamante ne j'avais tout dit ne du yegg mm-hmm. il avait dit non ba muy wax ne damay waxtaan ak ndaw ñi mm-hmm. est-ce que yéen a ngi gis dire que ça jokkoo bi la jokkoo bi <laughs> mais mais ak problème bi mooy la mooy lan mooy il est le président mhm. d'une coalition et pas mhm. le président de tous les sénégalais xam mhm. ah, nga benn jeune bi nga xamante ne peut-être que mi ngi nekk ci koñ bi euh, am na idée de projet boo xamante ni ñëpp xam nañ ne idée bi ko tegee mooy loolu mais pour mu jéem a am accès ci yenn financement yi il faut nga jokk ci ñoom boo bindoon sa projet fii ba suba duñ ko duñu sax la jënd nga gis benn simple jeune boo xamante ni il n'a amul benn expérience ci benn ci benn domaine mu dem déposer projet bi nga xëy suba ñu jox ko ay millions un an wala boog moins d' un mhm. projet boobu tombé à l'eau mhm. mu nekkaat di kooku noonu nga xam yàq ko si lu moom moom mooy nekk di di di. ngaañ président xam nga leen ba yow incha allah. ba mhm. Sylvie wala ba man wala ba keneen muy nekk président incha allah. suñu changé wul suñu comportement. on va vivre la même chose ñun kumba am ndey ak kumba amul ndey la africain du dund. y' a trois choses on remarqué en Afrique kii laa àndal. kii laa xam kii laay jàppale benn jox ma lenn neexal ma dara boo wareen yegg ci yoon duma la fa ci yoon corruption mm-hmm. ñaar ñetteel bu mooy ànd ma ak yow xaw ma la def ma yàq je ne sais pas si mm-hmm. Mm-hmm. te tant que yooyu noonu moo ngi am cest dire ñun dañoo tourner lu doo li nga xamante ne mooy développement car développement c'est quoi c'est que ah monsieur Fall mi bokkuñu parti d'accord mais monsieur Fall su fekkee da nga am idée bu am solo dafa jaaru sax ma woo la invité la si benn réunion de stratégie pour ñu xool naka la ñuy liggéey tey su Macky Sall wowoon Ousmane Sonko Sonko mooy njëkk jóg yëkkati mbaggam jaay na boo gis nga xam ne ne maa ko mën moo tax ma léema ma Sonko su demoon seeti Macky Sall pour quelque chose les gens moo day transhumé esprit politique la gars yi dañ leen di nax rek gis nga commencé ak war ñu mën toog aha donc mais kon kañ la ñuy am solution par rapport ak les parce que ñoom ñooy les têtes les ténors mm-hmm. ñoom ñooy ñi nga xamante ne tey bu doon néeg la naan ñooy rideau bi mm-hmm. pour nga dugg ci biir foog nga laal leen foog nga jàll leen mais ñooñu tey c'est-à-dire suñu wane un très bon exemple mooy ténor yi nga dajale yëpp ñu wane un très bon exemple pour gouverner pour diriger le Sénégal donc les jeunes n'auront pas de problème de conflit et que de nos mooy ñun problème de conflit la ñu tey bu ma bokkut ak yow parti duñ toog bu ma bokkut ak yow parti suñu waxtaan yëpp doon waxtaan xel waxtaan werante lay doon mm-hmm. bu ma bokkut ak yow parti mooy sama nit laay défendre sa nit ngay défendre bu ma bokkut ak yow parti mooy defoo dara munoo dara xamoo dara mm-hmm. il faut que les opposants arrêtent deux choses et continuent sur deux il faut que les opposants arrêtent de trop dire il y trop de communication inutile yoo xamante ni yóbbuwuñu fenn daf ñuy tardeel parce que daf ñuy woo vers ay jaayante doole ay xuloo ay xeex ay dàgga sant on n'a pas besoin de ce Sénégal def bi ñu juddoo ñun ba léegi loolu lañ fi gis on aimerait avoir un changement un Sénégal positif un Sénégal auquel tey monsieur Fall xaw ma ko dañoo dox daje benn jour rek mais ñu bokk benn table boo xamante ne uniquement on est en de discuter sur comment faut-il faire pour que le Sénégal soit peut-être un Sénégal meilleur. effectivement et que beneen bi mooy tey tant que mënuñu ñun tant que mënuñu ñun l'ensemble des jeunes je dis bien l'ensemble des jeunes taxaw ne non à ces il est gravement temps que ñun ñu dem fokkate li ñu moom qu'on soit dans les instances de prise de décision qu'on ne soit pas des simples spectateurs toog di topp ay nit rek ñu ñuy wax jaaral fii wala jaaral fii te ñu ëpp leen foofu ci askan bi kaay bu ñu waxoon kaa leen xeex ak ñu ne mag ñi nga mën ci doole ñoo leen mën ci xam-xam ñoo leen mën te bu dee ëpp ñoo leen ëpp lu tax ñoom ñu ñuy jiite donc ça c'est un problème loolu moo waroon doon équation mi ñu war a lijjanti que ça soit Ousmane Sonko Barthélémy Diaz keneen ak keneen ak Macky Sall et tout ça c' est des vieux il faut que ñun boobu idée tant que amuñu ko xalaat boobu tant ñëwul suñu bopp kon di que ne bëri na ñu wax c' est des vieux mm. c' est des personnes âgées de plus voire même plus de quarante ans donc ñooñu tey nguur lekk xaalis lañ koy doyee peut-être dañ lay gëmloo rek mais ku ne gisoon na Abdoulaye Wade laataa muy toog ku ne gisoon na Macky muy toog c'est normal Ousmane Sonko laataa muy toog bu toogaatee ëllëg il va faire la même chose je vous le dis je le jure au nom de Dieu il va <laughs> faire pareil c'est pas parce que parce que bu ngeen dee seet seetlu leen moom il a montré son fort Ousmane Sonko il a montré son fort son fort c'est ñu dàgg sant voilà une stratégie de travail pour Sénégal sukkaliku il n'est pas fort en on aimerait que Sénégal bii teñu non il i fort en ce que il ment il parle pas de la vérité il veut nous tuer il veut nous donc pour cela il faut nous arrêter il faut que ñu wàcc sur le terrain il faut que ñu dal seen kaw il faut qu'on dise non mais attendez il y a pas de compte jàmbur bu ñuy ñëw ñun ñu la koy régler non su nga amee ay règlement de compte que ça reste peut-être ñoom seen i règlement de compte man j'aimerais avoir un monsieur Fall bu taxaw ci Sénégal ne les jeunes ba ñëpp nekkoon naam kaa leen sukkali suñu réew mi képp ku fiy def aha kaa leen liggéey képp ku fiy def yoo xamante ne affaire de naaféq la on te laisse à côté on continue le chemin parce que c'est ça qu'on a ñaata atu yàlla depuis indépendance c'est les mêmes choses mm. mais sa maamaati maam nga ne ko Sénégal bi mu fi bàyyi woon mu dekkiwaat day gis même Sénégal xam nga kenn la moo change les immeubles peut-être yenn kër jug na te yooyu ay poste jàmbur la maanaam yow yaa am xaalis yow la yàlla jox su sutura nga yëkkate mais même Sénégal moo des. Mm-hmm. mais waaw coach Mor may ma rek may ma may ma may ma rek may ma may ma rek may ma lu ndaw ndaw rek moo ci des te am na question bu am solo bu ko bëgg a laaj d'accord ci denrée yi gis nañu meññe yi ak ci jamono ji ñi ngi en grève boo matul mburu sax fii ak ay jour dootuñu ko am semaine passée président Macky Sall en sa qualité de président de l'Union africaine demoon na ci Vladimir Poutine président Russie gis ngeen ñëpp guerre bi Russie Ukraine mu impacté côté blé yenn dëkk yi euh, ñëpp ñu si wax Pape François sax mi ngi si doon wax parce que nee euh, waruñu confisquer blé bi ba ñenn ñi euh, di xiif mhm. tey Macky Sall en tant que président de l'Union africaine yan mhm. chance la am mu réussir boobu l'émission parce que bu demoon demul ngir guerre bi arrêté parce que ñun information yooyu lañ jot mais il était parti mhm. uniquement pour ñu xool trouver ay moyens pour que blé bi mën a dugg si Afrique surtout déjà déjà déjà laaj bi boo dee seet ñun à l'ensemble des ambassadeurs mais ma li ma bindoon titrage benn la am benn titrage l'Afrique a faim mm. et l'Afrique à faim ça se traduit trois fois de trois manières différentes l'Afrique a faim c'est-à-dire l'Afrique à terme de faim si toutefois que le président Macky Sall sera capable très sincèrement de gouverner en guise de mutation su boobaa l'Afrique peut-être lépp lu nekkoon mettitam ak nakkaram mun na ko ne l'Afrique a faim comme xiif la Afrique def xiif boo xamante ne tey foo dem en Afrique c'est-à-dire foo dem en Afrique prenons par exemple l'exemple de Afrique du Sud qui fait partie des meilleurs pays d'Afrique hmm. am na ay zones yoo xamante ne ba jusqu'à maintenant mooy lekk sax amuñu ci accès kon donc l'Afrique a a faim alors l'Afrique a fin comme par exemple par rapport ak a comme a par exemple tey de quelle solution par rapport à un certain problème bu fi jotoon am ndax tey Macky Sall nekkatul gan ci Afrique c'est quelqu'un boo xamante ne il a vécu il a pas mal visité il sait bel et bien que ne lan mooy jooytu Afrique maintenant boobu testé dafa war a jiit ci biir réewam ba pare c'est-à-dire l'Afrique à faim boobu cest à dafa jiit ci biir réew réewam su desee rek ci réewam mu xool ne réewam comme yeneen réew yi noonu la mel problème mu réewam su ko jéemee mu ne lijjanti rek su boobaa dina yomb pour mu lijjanti ñeneen parce que charité bien ordonnée commence par soi-même si toutefois que il sera apte à résoudre yi nga xamante ne ñun moom la ñu am su boobaa dina yomb pour mu résoudre yeneen. wala moo tax ma ne la problème Afrique en fin boobu. xam nga Afrique finwul de. Mhm. ñun ñoo bëgg a xiifal suñu bopp. Mhm. parce que man africain bi nga ne man maa nekk bi réew mii mhm. man nekk bi Sénégal nga ne man du lekk ceebu ceebu waalo bi. ceeb bi jeef la parce que ceebu waalo bi dafa naqee togg mais jéemal xool noo dafa togg pour mu kii pour mu kii mburu dugub mi ngi fi nga ne man noo man mburu dugub bi noo a lii damay yëre yi fi nekk tissu bi ñoo defal fii. Mhm. Euh, bi nekkoon fii à Thiès consommé xam ne ñun pratiquement on avait rien amul dara lu ñu produire fii de. am na am na usine oh, bu nekkoon fii de non on a quelque chose. cest nekk mais ñun ñun ñi nga xam ñoo fi nekk ñun ñun ñoo ngi def promotion pour jéem a xam naka la ñuy def ba loolu am ko parce que amoon nañ fi euh, benn sotiba bi fi nekkoon. anamu. defuñu promotion. rey nañ ko rey nañ ko mu dee parce que Sotiba mën nañ ko mën a defal leen expertise jàngal ba ñu mën defar gañelaay bi ñu jënd ji feneen mm-hmm. ñu mën di ko amal suñu bopp mm-hmm. tissu mais sénégalais africain moo bëggul loolu africain moo moo def li nga xamante ni moo nekk ci réewam mm-hmm. am na yeen yeen yu fi nekk chocolat bi ñu ñu fi kii ah am na ay temps Abdoulaye waxoon am na projet boo xamante ni gerte bi ñu mën ñëw xool def ko noo xamante day nekk comme mais yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp africain ci boobu moom moo bëgg di teg boppam boppam coono ci yenn yoo xamante moom lépp ay <laughs> ay ay intérêt yoo xamante man falu naa Macky léegi ñi ma àndoon ñee fa nga nekk président benn parti politique loolu nekk président benn communauté tu es le de tous les Sénégalais bañ a ko léegi ay ay ay ñooñam ñu le président tous les Africains parce que ñëpp xam nañ ne xarañ na jaar na ci paa xarañ muy muy Abdoulaye mi d' abord mais aussi nañ xool aussi li nga xamante ne mooy intérêt wu réewam mhm. aussi muy jéem a sàmm kàddu ak ñi nga xamante ne ñoo fi nekk mhm. euh, instant bi moom li ma la wax rek il est omnibulé par leneen loo xamante ne moo nekk ci bopp bi mhm. mooy affaire troisième euh, affaire troisième mandat ak yeneen ak yeneen yeneen yi des yëpp lijjantiwu ko bu Sénégal yi di dee fi ba suba lijjantiwu ko Sénégal ay temps pétrole euh, yu bëri dafay kiyoon Sénégal ñu wax ne am na am na pétrole dañ jéem a xool ban stratégie ñuy xool pour jéem a xool pétrole boobu bi su paree naka la def ba bokk ci pays yi gën a mag ci affaire production mhm. jéem a développé waar canne à sucre bi fi doon jógee développé waar ceeb mbay bi ceeb wàllu fi nekkoon mais dinaa dogee fenn c'est-à-dire bugguma ñu ñun tam ñuy waxee toujours euh, su la défensive je dis bien te il faut qu'on admet une chose il faut qu'on accepte une chose ki nga xamante ne mooy président Macky Sall na ay problèmes yu Sénégal amoon yu tey yu mu sukkali yu mu defar ça il faut être mm-hmm. mooy mm-hmm. bëri na tey ay problème yoo xamante ne Sénégal amoon na ko mooy au moins def na ko. Mm-hmm. d'accord nga ak man. d'accord je suis pas Macky. qui me connaît bien il sait bien que je suis analyste et yu may taakale Macky Sall à travers tous les télés du pays. man je suis pas Macky mais je dis bien. je préfère tey moom la moom laa doon wax sànq si tant que mënuñu wax ne il a été bien quelque part et mal de ce côté su boobaa on n'est pas apte à être très sincèrement quelqu'un bu c'est bien Macky Sall il a beaucoup fait il a quelque part boo xamante ne il n'a rien fait hmm. je l'accepte mais tey ñun on des conseils techniques qu'on ne sache pas il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter quelqu'un boo xamante ne peut-être il peut être un ami quelqu'un de très proche au président Macky peut dire tiens ah j'ai entendu euh, un Sénégalais du nom de monsieur Fall bu wax une chose boo xamante ne tey njëriñ la war a doon pour Sénégal yëpp. Mhm. son excellence est-ce qu'on ne pouvait pas travailler comme ça et ça va trouver une idée jàppal na bëri na lu defaru ci réew mi yow yaa toog réew mi FM yaa ko defar. Mhm. que nga yëg ko nga bañ ko yëg. Mhm. mais xam nga tey ñun dafa am benn esprit bu ñuy dundee tant que dañul ci ñun ñun on on salue pas les bonnes choses on on magnifie pas les bonnes choses. et on veut toujours tacler les mauvaises choses. Mmh. donc au final on reste mhm. péjoratif on reste négatif. Mhm. donc de grâce il faut parfois encourager. merci parfois aussi merci malheureusement. ah loolu ci kan la. Euh, si ñun sénégalais euh, que yow man Sylvie tout le monde ah. ci sénégalais c' est vrai sénégalais sénégalais encouragé waaw motivé surtout du du motivé. nga tëjee ñaari question mu tëjee yow ñaari question mooy non ñaari question lay jàpp du ko tontu non du ko tontu du ko tontu du ko tontu ñaari question lay nekk non question lay nekk ba mu xam ne peut-être mënuñu ko waxtaanee biir ñëw muy ñaari question question yow boo amee projet yóbbu war ko yóbbu DER da nga naan su ma demee DER duñ ma projet duñ ma finance parce que ay ay jeunes APR la kii hmm. boo amee ANPEJ dañ naan ANPEJ aussi da naan bu fa demee ay APR fa yow posé ma question maa tiiñal de attends parce que quand vous dites que yow soo amee projet boo amoon déjà déjà déjà j'ai que des amis là-bas donc je les salue au passage <laughs> ok merci beaucoup c'est ça fait toujours un très grand plaisir billahi euh, nga xamante ne mooy Rewmi FM non seulement jàkkaaloo ak mon ami mon frère monsieur Fall moon ko toroba très <laughs> sincèrement et que Sylvie yow moom je di dis euh, dama leen di ñaanal xam nga lu tax ma leen di ñaanal tey ñun combat bu ñu musa am c'est les jeunes autour de la table nekk sujet de discussion ñu waxtaanee ñun suñu bopp mm-hmm. tey alhamdulilah ba boo dee seet combat boobu ñun am nañ ko mooy tey ndaw ñu ñuy jug ñooy wax seen problème mu réew ñooy défendre seen réew ñooy génnee solution pour seen réew et que tey combat boobu rek lañ amoon di leen ñaanal. Mm-hmm. yal na yàlla sàmm leen. yal na yàlla kàttanal leen yal na yàlla aar leen noonee la ñuy nuyu képp koo xamante ne rek tey toogoon nga. di ñu déglu à travers Rewmi FM ci émission Espace Jeune di wax ne mbégte la woon ak contentement bu nga ne très sincèrement ñëwoon tey seet si leen et merci à très bientôt incha allah ji euh, appel une fois képp ku for ay pièces euh, ci taxi surtout euh, loolu un sac avec beaucoup d' argent le dedans. nga joxe numéro téléphone wala wala ko fi non numéro téléphone baa ngi si biir ku ko foofu rek na jàpp si yàlla rek mm-hmm. euh, restituer ko au moins. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. pièces yi voilà ah. dama leen koy. ñaan vraiment association fii la doon ñëw réew mi FM ah. vraiment fàtte pièces ah, kon na ko woo quoi nga xam ne ñoo ñu bàyyi xel. yow sama gars nga merci à vous merci <laughs> suñu auditeurs donc ngeen jox dig daje mercredi bi di ñëw.